di ñaan sunu borom mu dëkkee dotti waamem xewal ci kaw sahaaba yooyu ak seenab yonent ridwanullahi alayhim ajmain dellu siwaat nañ beneen yoon ci ron keppaaru xam-xam ci ron keppaaru sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu ñu fàttalikoo ci suñu bind bi weesu ñu ngi woon ci dundu alsahabiyu aljalil alzahidu alkabir alfaqihu alwari'a alxaashi'a abu darrin alghifaari jundub ibni junaada abu dar comme ni ngeen ko gisee ci xaaj bu njëkk bi ci dars bi passé kenn la woon ci saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax naa leen ni saxaaba yi dañoo am ay jago yoo xam ni kenn du leen ca fekk ba yowal qiyaam kenn ku ca nekk am nga ak jagleel goo xam ni borom bi jagleel na la ko gis ngeen yonente bi alayhi salatu wasalaam doon wax ni man sarrahu an yandura ila tawadu'i isa falyandur ila abi dar ku bëgg a xam nan la isa ibnu mariam meloon ci dëddu àddina ak ragal yàlla soo xoolee abu dar mel na ni gis nga waaja xam ngeen ni kon kenn ci nit ñi bu fekkee ak góorgóorlam yegg na ci bañ koy tëkkaleeg méngaleeg nirle akub yonent jàpp naa ne loolu lu rëy la jubluwaay bi gën a rëy ci darsu yi muy xayaatu saxaaba mooy mu nekkaat ak niitu ak nafaru ñeennu waxoon naa ko fi ay yoon te wala azalu ukarrir mbokk yi ñu xam ni jamono bi ñu toll jubbantiku ak jub ci boppam dafa jafe ndaxam day di nga dégg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ni jamono ngi ñëw joo xam ne ju naqaree góorgóorlu la ku góorgóorlu ca jamono jooja buñ lay fay tiyaaba dañ lay fay tiyaaba yi juróom fukki saxaaba xadis bi bokk na ci xadis yi ñu gën a yéem te gën noo jaaxal ndax man dama daan toog ba mu yàgg ma ne waaw nun fan la nit mën a góorgóorlu ak lan ci kaw suuf nga mën a def ba tax ñu lay yool tiyaaba yi juróom fukki saxaaba loolu daal jaaxal na ma waaye fi mu ne nii moom wax dëgg yàlla jàpp naa ne waratunoo jaaxal ndax li ko waral mooy xam ngeen ni mbokk yi tey jubbanti ko jub dafa jafe trop même yow da nga yëg ci sa xol ni da ngaa bëgg a baax waaye ñaari fan ngay orienté wu rek ñetteel ba affaire ba ni mes loola bi ma ko seetloo ba ca biir ci laa ni ndekete yool bu rëy boobu ñu diggee nga xam ni xaw tuuti kon nga jàpp ni mënta nekk bu dul woon ak sa waxu yonent la li ko waral mooy dafa fekk ni jubbantiku ci boppam moo jafe xaw tuuti kon ñu ni kon mënta nekk donte nag mën naa nekk waaye jafe ga daa yegg foo xam dafay nuroog lu mënta nekk ndaxam jamono ji kuy góorgóorloo ko farlu ba nga mën koy nirle ak saxaaba ya li may faral di wax ni jàpp naa ni ki gën a jàmbaare ci ñun bu daje woon ak saxaaba ya toog ak ñoom day rus ba du ñibbee si kon jàpp naa ni li ñuy tuddee al qudwa muy repère wala référence wala koo xamante ni moom ngay teg ca sa kanam di ko niitu loolu lu jafe la fi ñu toll mbokk yi dafa jafe trop leneen ñu wax la ay yëf-yëfaan ci jamonoy saxaaba ya soo ko bëggee méngaleeg li ngay dund xaw tuuti kon nga jàpp ni mënta nekk waaye nag sunu borom képp ku góorgóorlu mu dimbali la walladina jahadu fiina lanahdiyannahum subula bu ngeen fàttalikoo ci suñu bind bi weesu ñu ngi taxawoon ci makaanatuhu fi qulubi saxaaba radiyallahu anhum ban wàccuwaay la saxaaba yi la Abu Dar amoon ci ron saxaaba yi loola leeraloon naa ko ngi gisoon ni kon fonkoon nañ ko lool bindab tey maa ngi koy tàmbalee ci ar-raddu ala man zaama anna Usmaana axraja Aba Darrin ila ar-radda radiyallahu anhuma tontu boo xam ni dees koy tontu gaa yi nga xam ni dañoo jàpp ni Ousmane dafa dàqoon Abu Dar génne ko Madina amoon na kenn ci ñun mu naan waaw loolu loolu mooy lan ak lu jar tontu ahankay jar na tontu ndax li tax mu jar tontu mooy masala la moo xam ne am nay boromi xam-xam yoo xam ne loolu lañ bind sax ci seen téere faf te loolu amut kon jàpp naa ni mbirim bu yeggee foofu jar na tontu masala moo xam ne dem na ba ay boromi xam-xam juum nañ ci wala ñenn ci ñoom juum nañ ci ba ca seeni téere boo ci yëree la ñuy saxal mooy Abu Dar kat dafa compliqué woon ba kenn mënta dund ak moom moo tax Ousmane dàq ko mu génn Madina maada allah loolu amut déedéet demeewut woon noonu moo tax bu ngeen fàttalikoo ci dundu Ousmane ibn Affan masala mi leeraloon naa ko leeral goo xam ni dafa faram-fàccewu lool ak tuham tuuma yi nga xam dañ koo tuumaaloon Ousmane ibn Affan te tuuma yooya benn saxu ca leeraloon naa ko benn par benn bokkoon na ca mooy tuuma jiñ ko tuumaloon dafa dàqoon Abu Dar génne ko yaakaar na ne boobaag léegi mi ngi bëgg a yàgg waaye ku ci dellu gis ko ca al allaama Abu Bakr ibn al Arabi rahimahullah ci téeréem boobu al awaasim min al qawaasim fi maarifati mawaqif sahaba ba'da rasulillah soo ca delloo andi na mbir yooyu benn par benn te bokk na ca mooy tontu gu muy tontu ñiy wax ni Ousmane dafa dàqoon Abu Dar ànd ak loolu lépp borom téere bi dafa wax wax ju am solo mu ni wa hada zulmun azim wa munkarun asim fa usmanu radi allahu anhu a'dalu wa afdalu min an yaf'ala bil afadili min alsahabati ma la yastaxiqun allahu akbar mu ni lii ak tooñ gu rëy la bakkaar bu mag la ñaawteef gu màgg la mu ni Usmaan moo gën a maandu gën a baax gën a ragal yàlla ci muy seet tànnee fi saxaaba yi yonente bi di leen dàq dëkkab yonente bi sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar wallahi wax na dëgg Usmaan moo gën a maandu moo gën a sori ka di seet ña nekk ay tànneef ci saxaaba yi yonente bi di leen dàq ci dëkkab yonente bi pour ñuy génn loola mukk mustaxil mënul nekk wala boog muy jël ay ñaawteef yu ñëpp ku ko dégg bañ ko di ko teg ci kaw ña nga xamante ni waxuma la ay saxaaba lañ waaye ay tànneef lañ ci biir saxaaba ya waaye mu ni wa innama kaana hada min usmana taxyiran li abi dar génn gi abu dar génnoon madina dem dëkk dëkk bu ñuy tuddee rabda nee na ak tànneef la goo xam ne usman daa tànnloo abu dar ba abu dar gërëm mu doog koy bàyyi mu dem bokk na ci tegtal ya lan toxal jëlee ko ci zayd ibni wahbin zayd ibni wahbin nee na benn bis te lii may wax nii imam abu nuaym génn na ko ci tasbitul imama wa kadalika yeneen i borom xam-xam tamit génn nañ ko ni damaa romb zayd ibni wahbin mu ne damaa romb abu dar ca rab da gëm dëkk ma ni ko waaw yow abu dar looy def fii lan moo la indi fii ci àll bi ndànd foy foy bii nga nekk lu la fi indi mu ni toogal ma nettil la mu ni ko dañoo nekkoon Saam man ak saxaaba ya fekk Muawiya moo nekkoon gouverneur ba mu ni benn bis Muawiya di waaraate mu jàng aaya ji sunu borom di wax ni walladina yaknizuuna aldahaba walfidda wala yunfiquunaha fi sabilillah fa bashirhum bi adabin alim ñi nga xam ne dañuy denc or ak xaalis te duñ ko génneel azaka duñ ko joxe fi sabilillah bégal leen ci mbugal mu metti keroog bañ leen di ñaas di leen paase ca sawara nee na Muawiya mu daal ni aaya ji ci ahlul kitaab la wàcc maanaam chrétiens yeeg juif yi ci ñoom la wàcc Abu Dar ni ko du dëgg waxoon naa nag du dëgg baatam du dëgg nekkut ak manque de respect wala ñàkk teggin fan moom déedéet ay morom lañ ñoom ñaar muy benn ñaareel bi tamit Muawiya gënu koo màgg ba tax waru ko mën a wax loolu beneen bi ci def Abu Dar ku amoon ak dëggu la ku amoon sincérité la amut lu muy làq ak lu muy nëbbu ca kanam la la koy wax noonu rek nga koy déggee waaye du ñàkk teggin wala ñàkk kersa wax jooju nag mu ko wax mu gêné Muawiya trop ndax ci kanamu nit ñi la ko ko waxee Muawiya daal di mer ca loola daal di bind benn lettre Usmaan ibn Affan ni ko Abu Dar mii nag wax ci ndax daf may fekk ba ci digg nit ñi may waaraate muy yàq yàq li may def wax ci nag te xam ngeen ni Abu Dar nam doon dundee. jàpp naa ne boo ko xoolee ba ca biir nag da ngay xam ni wax dëgg yàlla nag tànneef ak sunu borom la sunu borom da koo may nag ndax Abu Dar ci biir saxaaba yonent bi te ñenn ca ñoom sax mënuñoo dékku lim doon dund ndax taraayam fu mu yeggoon moo tax bu ma déggee kum naan diw daa tar dama dañuy dañuy wax rek man loolu laay wax jamono bi ma toll boo boo déggee ñu naan diw daa tar damaan gars yi dañuy wax rek ñun ñun ñun gisuñu sax ku gis ku tar ñun yàlla xam na ni gisuñu sax ku gis ku tar. ku tar ci li muy dund nga xam ni meetar virgule lu tolloog xebu karaw du ko bàyyi mu jàll ñun gisuñu sax ku ko gis waaye ñooñee nañu meloon nga xam ni seen dëggu ga suñu borom a nga ca kaw asamaan di leen ko seedeel laa shakka na ñooñu ñu dëgg ulaayka humu saadiquun ji ma waxoon bërki démb kon nee na bi loolu amee asmaan daal di may woolu nee na bi mu yegsee mu daal ne ma inzil xaysu chita bu fekkee jàpp nga ni mënoo nekk foofa gis nga de kon ak tànneef la su fekkee jàpp nga ni mënoo nekk foofa seetal foo jàpp ne mën nga faa nekk man ma bàyyi la nga dem fa kon boobu benn la ci tànneef abdullahi ibni samit nee na benn bis dama dugg ci abu dar fekk am mbooloo ña nga fa ca waa rifaar ñi ngi nekk ci osman ibni affan mu jaarale leen ci porte boo xam ni daanaka ay ay personnalité ñoo fay duggee maanaam xam nga kilifa gu nekk am nga bunt yoo xam wala néeg yoo xam ni ay kilifa nga fay dugal nee na bi ñu jaaree foofu nee na mu mel ni gaayaa ngi catal ba abu dar di ko bàyyi xel Abu Zar affaire bi métti ko trop ndax nit ñi niñ koy xoolee mel ni sa waay ku gis jinn ci biir dëkk bi lu waay doon def rek bu la Abu Zar rombee nga bàyyi ko Abu Zar nee na bi ma yegsee Ousmane tamit bokk ci ñi may xool ma ne ko Ousmane ahasabtani minhum ya amir al muminin mu ndax yow da ngaa jàpp ne man ci ci ci ñoom laa bokk ci ñoom nag ni ngi ci na mu xawaari ji xam nga xawaari ji dañoo tolloon foo xamante ni jamono jooju ñi ngi ñi ngi commencé fëq di am doole ci jamonoy Ali nag moom daanaka te lañ seen i béjjën fëqee nag ñoom mu ne ko dox da ngaa toog ni man ci laa bokk mu ne ko wallahi ma ana minhum bokkuma ci xawaari ji de te bala ngay xam ne bokkuma ci nee ma léegi demal garab gee nga matt ko téye ko ba dee fekk la fa te bul bàyyi garab yi nga xool boo ma koy digal ma di ko def Ousmane ni ko xam naa la bu wir ni su ma la ko santee nga def noonu la ñuy déggalee amir mbokk yi yent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam amir bu jullit ñi falee kenn ni kii mooy amir waxuma nag li sama gars yi wax naa président de la république koo xamante ni moom nee na la attewuma charia góor ñaar jigéen benn daa xewi fu góor am place jigéen war na fa am place jàpp naa ni kooka boo ne ko da ngay attewoo charia par force yow sax yaa ngi koy bëgg a tool ndax ki taxaw ne la attewoowuma ko wax dëgg yàlla bàyyi ko amirul muminin buñ ko xësee ba fal yonent yàlla bi nee na bu la dóoree muñal bu jëlee sa alal muñal ah même booy jël nga matt ak bant garab ŋànk ca téye ba dee fekk la fa ci dégg ndigal def ko Abu Dar ni ko gis nga ba ma waxoon garab gii léegi demal nga màtt ko téye ci say bañ ba dee fekk la fa digal ma ko léegi ba ma koy digal ma di ko def te gis nga nag ku ñàkk caaxaan ba mel ni Abu Dar doog bu ko ko doon wax mu dem di ko def demal màtt ci carub garab gi nga taxaw foofu rek ba dee fekk la fa bu ko ko doon wax mu di ko def moo tax Ousmane du ko ko wax xam na ni kii ku ko wax mu def ko mbokk yi Abu Dar ku ñàkkoon ay caaxaan la loolu bokk na ci yeneen bi Abu Ousmane ibn Affan daal ni ko sadaqta inna arsalna ilayka li xayr man loolu taxut ma yónnee woolu la waaye dama laa woolu woon ngir aw yiw kese li tujaawirana bil madina mooy dama bëgg nga ñëw dëkk ak ñun fii ci madina loolu laa bëgg xam nga ni ka ko jëlee fee di ko indi fii kooku du ko dàq kooku kay da ko doon indi waaye dàq ko mu ni ko laa xaajata li fii dalik aw ma aajo ci dëkk ak yéen allahu akbar mbokk yi dëkk biir madina xool la fa ne ci ay ngëneel dëkk ak saxaaba yi lu ko dàq dëkk ak amirul muminin lu ko dàq rawatina nag amirul muminin la kaay ñu dëkk nag mi ngi mel ni rek président de la république bu ne la kaay ñu dëkk biir palais xam nga loolu moom yow buñ la ko waxee yow nun nun de nun sax nag foofu dañ dul xaar ñu ñu koy wax ñun ñoo koy sàkk ñun faf waaye yooyu yëpp mu ne ko awma ci aajo mu ne ko léegi bu fekkee mën nga maa jox ndigal ma samp ab dëkk ma sancib dëkk ma dem rabza mu daal di koy jox ndigal mu ne ko waa léegi comme man man amirul muminin gileemu azaka yi maa ko yilif dinaa la jox ay gileem nga yóbbaale mu ne ko do doy doy na doy na su awma ci aajo maanaam ñoom ci seen jëmmi bopp mbokk yi boo seet loolu leen doon dikkal ci wàllu àddina safaan ak ñun lañ ñun moom kenn ku ci nekk yaa ngi bëgg chaque jour ngay maanaam yii mbokk yi buñ koy dégg rek muy dem faw ñu see def ay taxaw seetlu mooy ñun dañuy xëcc lool jëm ci àddina ñoom àddina moo leen doon dàq ñuy daw allahu akbar ñun ñooy daw ay xel di dàq àddina te duñ ko dab ba keroog ñuy faatu ñoom àddina moo doon daw ay xel ñu koy mbas ak a moytandiku parce que soxla wuñ ko woon loolu mooy dëddu àddina hada huwa xaqiqatu zuhd mu ne ko loo nar a dundee mu ne ko am naa ay quelques gileem rek yu ma jot a am bàyyil ma ma di carat di naan te nekk ci àll bi di bàyyi di dundee bi loolu amee mu ne duunakum maachara qurayshin dunyaakum yéen waa qurayshin bu dee àddina moo leen yitteel jël leen seen àddina ñan la woon waxal saxaaba yi allahu akbar te saxaaba yi ak a ñoo sori àddina waaye moom fi mu toll ci ak góorgóorloom jàpp na nit ñi sax dina dañuy caaxaan loolu moo tolloon la Xusayfa doon wax daa génn dem jàkka ji ñëw rek commencé jooy looy jooy muy génn naa xàmmeetuma lu nuroog la yonent bi nekkoon ak i saxaabam lu dul gis naa ne nit ñaa ngi dem jàkkay julli moo di saxaaba yaa fa nekkoon ak taabi'un yi de kon farlu nga fa mu tolloon ak ngëm nga ak yëg-yëg ba fa la doon waxee wa illaa laa shakka ne ñu baax rek ñoo fa nekkoon Ghalib ibn Qattan nee na damaa wax benn bis Xasanul Basri ni ko waaw ndax Ousmane moo génne Abadar Madina mu ni ko mahaada Allah musulul ci yàlla li ngay wax loolu kenn du ko wax Ousmane ëpp na muy def loolu moo tax Muhammad ibn Sirin nee nañ saa boo masaana netti li bay wax ne Ousmane moo génne Abu Dar Madina rek da ngay gis kanam gi soppeeku mu mer ndax dañu jëf ju bon jooju kenn waru koo askane Ousmane ibn Affan mu ni bal kay Abu Dar xaraja min qibali nafsi moom moo génnal boppam te loolu mooy li wér mu xaqiqu ni ci borom xam-xam yi loolu la ñu saxal wàññi ne Ousmane kat dàqul xam nga loolu nag soo gisee sonn gi ci di leeral bu ngeen fàttali ko dundoo Ousmane xam nga Ousmane bokk na ci ñiñ gën a yàq xulafaaw rashidun tuuma yu bari tuumaal nañ ko bokk na ca bii maanaam xam nga ki la ki la bëgg a jiiñ sàcc bul jaar ci buntu këram loolu la olof yi lépp maanaam Ousmane comme fit fit na ñëwoon na ñu bëgg koo rey yaa ngi ni da ngaa dàq Abu Dar yaa ngi ni keroog Badar da ngaa daw xam nga Badar bokkoon na ci ñu daw waaye Abdullah ibn Omar ba ko waa xawaari yi laajee duñ ko tëllanti de bañ ko laajee mu ne waawaaw weddiwu ma ko de keroog Badar de de du Badar Uhud keroog Uhud dafa daw mu ne waaw wax nga dëgg dafa daw kay. badar moom daa tardé waaw daa tardé waaye nag yonent bee ne ko toogal sa jabar daa feebar te la lay wan ni am na tiyaaw mooy ba ñuy séddale màng ma am na wàllam oxod daa daw mu ne daa daw de waaye da ngaa fàtte ni sunu borom subhanahu wa taala moo wax ci alquran ni baal naa leen seen bàkkaar ba mu ne bàkkaar bu yàlla baal ba bopp nopp jërëtu la tudd bokk na ca mooy da ngaa fal say mbokk dëgg la am na ay mbokkam yu mu fal waaye yonent bi sax a njëkk a fal ay mbokkam sallallahu alayhi wa sallam yooyu yëpp nag détaillaat ko dana xaw a jafe leeral naa ko lu mat fukki tuuma ak juróom wala juróom benn waaye benn bu ca nekk daanaka rek ak jéeñ la waaye amut Abu Dar radiyallahu anhu kon noonu la génnee mu daal di dem dëkk boobu ñu tuddee Rabza ber ak saaw ak boppam safahatun mudiatun min zuhdihi wa ibadatihi radiyallahu anhu ay niitu yu leer nañ yoo xam ni dañ koy def ci Abu Dar mbokk yi nan la dëddoo woon addina ak nu mu doon jaamoo yàlla mbokk yi addina dëdd ko ci boppam muy az-zuhd jàpp naa lu mat a xam la ndaxam am na yoo xam ni ñenn ñaa ngi koy tuddee zuhd muy dëddu addina te du ko am na ñoo xam ne jàpp nañu ñoom dañoo dëddu addina fekk dëdduwun addina dañoo amagul rek bu ñu amee soppeeku am ñoo xam ne jàpp nañ ne àddina li ñuy wax naan dëdd ko dëdd ko dëdd ko ah déedéet àddina moom loo am ci xéewal yi jëlal ndax yàlla wa tayibaat qul qul hiya lillazina amanu moo tax masalam dëddu àddina ci boppam bokk na ci masala yi ñu am problème àddina di ci gàttal dëdd ko mooy léppi àddina bul ko def ci sa xol waaye téye ko ci say loxo saa bu bëgg-bëgg bi yàlla dajee ak bëgg-bëgg bu waa àddina nga ni yalax bi deseeg bi nekk ci sa xol defe naa ñu ngi fàttaliku daaw ci lu jege waxtu wi ci manazilu sairina ila allah ci jumtukaay yi nga xam ne nit ki mën na cee jaare ba mën a am ab cër ca sun borom bokk na ci manzilatu zuhd mooy dëddu àddina leeraloon nañ ko ci wane dëddu àddina lan mooy dëddu àddina ak lan la ca borom xam-xam yi wax dëddu àddina ci boppam mbokk yi dafa am solo trop ndax àddina dafa doyati ñun nag duñ ko duñ ko réel yonent yàlla bi ne ne yéen a ñàkkal yéen a yéen a amal fayda lu ñàkk fayda addina bu doon peese fa yàlla lu tolloog laafu yoo kon yàlla dina ko valoriser ba ab yéefar du fi naan kaasu ndox dañ ko koy araamal du ko naan waaye ñàkk solo gum ñàkk solo moo tax suñu borom bàyyi yéefar yi di fi noos doomu aadama bu xalaatee manazil ya suñu borom di xaar xaare jaam yi ca àllaaxira wallahi mbokk yi ci nga xam ne addina du dara kër goo xam ne ndeysaan da ngay sànni sa bët mel ni sa waay Dakar ba Thiès ngelaw luy ëpp brise boo xam ni parfum ba cay gëttee di ca génnee kenn xamut nu mel ndax neexaay kër goo xam ne da ngay dugg ba génn doo seen wanag ndax amuñ ca aajo nit koo xam ne lu la neex lekk waxtu wu la neex lekkee amut nelaw amut gëmmentu amut xiif amut mar amut sonn amut liggéey amut màggat amut dee amut wànnen amut feebar amut ñandu ah maa ngi jàpp ni mbokk yi loolu neex na de loolu amut fii de kër goo xamante ni benn gratte-ciel lañ lay tabaxal ponkal nga xam da ngay séen doo xam fu mu yam birig yi dañ koy defaree or ak xaalis loo aajowoo rek xalaat nga ko rek mooy yegg si na ci sa kanam ma tashtahi l anfus lu neex bakkan ma nga fa wa talazul aayun luy sedd bët ma nga fa wa antum fiha xaalidun da ngay sax dakk amul génn amul génn amul sax nag dem di sangu ji nag looy sangu yow da nga tax day sangu yow ku taxut sa do- looy doyee sangu ku xeeñum ñax looy doyee sangu ah looy doyee wana ku dul dem wana ku dul tuur ndox looy doyee dem wana daa jar dem hôpital ndax doo feebar yow allahu akbar amul joxe dépense amut lenn loo xam ni coono la laa yamasuna fiha nasab wala yamasuna fiha luxub gis nga kër googu mbokk yi ku ko comparé ak ñun li ñuy dund fii li nga xam ne wa mal xayaatu dunia illa mataaul xurur yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbokk yi ci lii la yaram saxaaba ya moo tax lu mënta ñàkk ci ay jumtukaay yoo xam ne jàpp nañ ni yii kat daf leen di dimbale ci seen diine loola doy loo nañ ko fi te nag est ce que xam nga ni ñi gën a dund lii ñoo gën a noppalu ñi gën a dund lii ñoo gën a noppalu xoolal benn waay boo xam ne lu mu am lu mu ndaw ndaw am na lu ñu tuddee xanaa mu doyloo ko sonnut ay problème fekku fi di xalaat di tëdd doo mën a nelaw chaque jour yaa ngi test si ñaq fii ah signé fii dugal këyit fii génne fee doo nelaw doo noppalu doo yàq doo yaas sonn da ngay dem ba ndeysaan say ibaada sax dootoo ko mën a sàmmati nga gis waa joo xam ne sa waay yii yëpp fekku ci te dafa noppalu lool ndax jàpp naa ne lekk-lekk la naan naan la waruwaay waruwaay rekk la bëggante bëgg-bëgg yi ci nit ñi di gën a ëppalante nag la sunu borom alhaakumu takaasur loolu moo ñu sonal ñu njëkk ña nag bañ jàngee ca yonante bi sallallahu alayhi wa sallam doyee dik àddina xam valeur alaxira ba ñuy fekk te walal axiratu xayru wa abqa taxoon na seen dund gi dañoo fàccewar àddina la ali nabi tal doon wax yaa dunya yaa daniya ee yow àddina cëm cëm cëm yow àddina yow mu doyee demi cëm cëm yow sax yaa ngi tey sama xel mi ah wurri xayri yow àddina yow mu doyadi bi cëm waay man nga bëgg a nax mu ne naxal keneen ku doon man man comprendre naa la bu baax fa umruka qasir dund gi ma fiy dund daa gàtt lool wa xataruka azim danger yi nekk ci yow daa bari man mu ni passé naa la ñett yoon yoo xam ne fay li dootul doxati sama digganteeg yow allahu akbar ñooñu noonu lañ doon dundee abu dar mbokk yi bi mu demee rab da ca nan dun dunden dundee ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca la continuer dund abi bakar ibn al munkadir mu ni habib ibn maslama kenn la woon ci kilifa ya ndax moo nekkoon amiru sham moo jiite woon sham gouverneuru sham ne dafa yónnee abu dar ñetti téeméeri dinaar ñetti téeméeri dinaar te xam ngeen ne ñetti téeméeri dinaar ah xaalis la de ñetti téeméeri dinaar xaalis bu bare bare bare la mu ne bi mu ko yóbbee ñetti téeméeri dinaar mu ne ko na nga ko dimbali koo faj say soxla mu daal di jëlaat mbuus ma yónneewaat ko ko ni ko ma yow xanaa xamoo keneen ku ñàkk ko dul man man lu may doy ñetti téeméeri diinaar man lu may doy man xanaa gisoo li ma jotaan ci gileem te kat gileem yi daanaka matul sax fukk kat de xanaa yi ñett ñeent juróom jëm juróom benn gileem la yor xanaa gisoo li ma yor ci ay gileem ni mu bare nee na yow xanaa gisoo keneen ko am aajo mu ni man lii ma gis yore doy na ma damay tiit ma am lu may desal te rus na maa dajeeg yàlla di amu des allahu akbar gis nga bu njëkkoon ñooñu nañ doon dundee mbokk yi ñun war nañ ko di xalaataat de ay ahlu siyar dañuy nit li borom xam-xam bu mag boo xam ni am njàngaleem dafa tar ba jéggi dayoo gaa yi gaa yi bu ñu la gisee comme li ñuy def tey rek da ngay gis ndeysaan kuy daaw ba mu yàgg wala ayaasu billah yàlla na yàlla boo leen ci musal xëy rek noppi gaa yi dañuy xëy benn bis rek indil la ab ab kële ab la cabine seen cabine yooyu nuñ koy tuddee ti manette manette duyal la ci ay affaires yu xonq ba mu fees yàlla ay bee am luñ la wax rek daan la lii ngay wax nii day indi fitna rek te nga noppi moo gën fitna baaxut nga noppi nee na ñu fekk muy jàngale ñu jël benn kii comme paa yi seen morceau yu ñëwee percal bu ñuy kiyal jàkka ji seen gabaga yooyu ah ñu jël ko duyal ko ci xaalis ba mu fees bu doon jamono ñu ne ay million la ñu daal di ko yónnee ni ko amir moo la ko jox nee na nga dimbali ko ko say soxla muy ko yàlla baaxee mu jël ko daal di wax bëkk néeg bi ni ko demal dugal ma ko ca bëri ko ba may denc ceeb ba mu dem dugal ko fa affaire ba fa la nekk ba lë- lënd yi fekk ko fa jamono dem ba mu yàgg ka ko yónnee woon daal di yónnee ci moom daal ni ko ah lan fi yónnee woon ko dañoo juum yaa ngi fàttali ko bis sàngam lan fi yónnoon buñ ne la dañoo jum fekk ngi lekk nga ko foo koy waxee ji yëpp ñu ne ko dañoo jum mu di bëkk néeg bi la ma la dénkoon foo ko tegatoon mu ne ko ma nga ci kii ba mu ne ko de bi nga ko indee mi ngi lënd ñu ne ko waaw yow lii lu tax jëfandikoo woo ko mu ne inna man laa yamuddu rij yad- yadahu ah inna man laa yamuddu rijlahu laa yamuddu yada mu ne man bañ naa ko bu may jàngale damaa am teggin ba du ma tàllal sama tànk mu ne ku rusa tàllal tànkam buy jàngale war naa rusa tàllal loxoom di ñaan moo tax soxlawuma la ngeen ma joxoon fee laa ko tegoon di xaar ku ci am aajo ma may ko inna man laa yamuddu rijla laa yamuddu yada xoolal xoolal loolu boo ko comparé ak ñun ni ñuy dundee tey nga gis koo xam ni borom bi sotalaat subhanallah Souleymane ibni Abdul Malik dafa mës a dugg si ci jàkka ji fekk benn waay buy julli julli gaa ngi la ko teeyal mi ngi la ko rafetal maanaam yow boo toogee sax te xam ngeen ni doon naa ko wax ci sifatu salaati nabi saa sallam gis nga julli gi yonente bi nag saa bu ko nit di jullee da lay marqué parce que affaire bi dafa rafet nag dafa rafet amir toog ci minbar bi di ko xool di ko xool di ko xool affaire bi yéem ko ndax waa ji ni mu dalee ak julli gi ni mu rafetee wuuteeg sunu julli yi ñun mu daal di wax bali bëkk néeg bi ne ko ubbil walis bi nga ubbi walis bi mu ne ko génneel ma mbuus gi def xaalis mu génne ko mu ne ko demal nga joxal ma ko kële di julli maa ko ko may mu daal di yëkkati mbuus gi ñëw fekk waa ji muy julli mu ne ko amir moo la ko jox moom xam ngeen ci amir la jógee de mu ne ko li lan la mu ne ko xaalis mu ne ko man la amir wax mu ne ko waaw mu ne ko déedéet amir waxuma la de xo dama laajaat mu ne ko bàyyi ko mbuus gi te nga dem laaj ko booba xam na ni moom la waaye pexe la bëgg waa ji wan ko ginnaaw di ñëw di laaj amir rek mu rocc ay dàllam rek génn madina bàyyi fa xaalis ba def na juróom-ñaari fan ci biti ba dégg ni amirul muminin génn na dëkk bi yóbbaale na xaalis mu dellu si mu ni lu may yokk bi yéen àllaaxira laay bañ moo tax ma bàyyee ko xaalisam jàpp naa ni mbokk yi lii xoolin uways alqarani yéen ci yàlla bi inna xayra taabiin rajulun yuqaalu lahu uways alqarani ki gën ci taabiun yi benn waay la bu ñuy wax uways alqarani dafa amoon wayjur wu jigéen boo xam ni dafa silmaxa tànk yi baaxul mu dégg ne yonente baa nga madina ana lan moo gën a neex ñëw madina seet si yonente bi su boobaa ngir nga ngir nga bokk ci saxaaba yi bokk yi xoola bokk ci saxaaba yi ni mu neexee waaye lan moo ko teree bokk ci saxaaba yi nee na su ma fi bàyyee sama yaay day tumuraanke doom ku ko dimbali mu ne man taamu naa dimbali sama yaay loolu moo ma ëppal tiyaaba may bokk ci saxaaba yi allahu akbar est ce que xam ngeen ne loolu la ko yàlla fayee ba yonente bi ne moo gën ci taabiuun yi loolu Muhammad ibn Munkadir waxoon moo ko Amar ibn al Munkadir te guddi ko Omar di naafila Muhammad mu ko di bés tànku yaayam mu ni ko ba ba guddiwaat gis nga bu guddiwaatee boo delloo ca la nga nekkoon ma dellu ca la ma nekk te xam ni maa la ëpp tiyaaba gëm naa ni bés fanaanee bés sama tànk yaay moo ëpp tiyaaba sa fanaanee naafila googu allahu akbar Uways al-Qarani Omar ibn al-Khattab dajeeg moom di ko laajte dikk ci waa Yaman ni leen yéen amul benn waay bu tudd Uways al-Qarani ñu ne déedéet beneen mbooloo ñëwaat mu ni amul ku tudd Uways al-Qarani ñu ne déedéet beneen mbooloo ñëwaat mu ni amul ku tudd Uways al-Qarani gaa yi ne Uways Uways Uways Uways kooku de yaakaarum ko de benn waaye ni ah est-ce que du suñu waa ji ñàkk solo ji gis nga de xool nit ñi niñ ko ñàkkalee solo mu ni kooku de est-ce que du suñu waa ji ñàkk solo ji moom te toog ci nit ñi sax mu nga ne day sàmm demal ci ginnaaw fa de ca ngeer ya nga laajte ki sàmm foofu ba xam Uways la tudd nga xam ni kenn compté wu ko sax moo tax may wax ne toujours gis nga fa ko yàlla def toujours nit ñi kenn du ko xam dañ dañ dañ koy doya dalal doya dalal doya dal fekk fa la ko suñu borom def fan jàpp ni foofa la nekk suñu borom def fa lu dul ay lënd gars yi ñëw fekk mu taxaw Omar ibn al-Khattab ni ko anta Uways al-Qarani yaay Uways mu ne ko waaw da nga amoon wayjur wu jigéen woo déggaloon ba tere laa ñëw ci yéen sasala mu ne ko waaw waaw yow lu tax bàyyiwoo ko foofu nga ñëw bokk ci saxaaba yi mu ne sama yaay dafa selmaxa tànk yi yàqu ma bañ mu tumuraanke sama gannaaw mu ni ko da nga amoon feebaru jib mooy feebar yi nga xam ne sa yaram bi day xonq di mel ni yaramu tubaab ni muy mel wala naar wala demee noonu fekk yow ko ñóolu nga moo nekkoon sa yaram bi yëpp mu ne waaw mu ne ko lépp wér na ba mu des wërngalu dërëm mu ne ko waaw waaw mu ne ko kon kaay yow la ma yonent bi waxoon ni saa bu ma dajeeg yow naa ñëw ci yow nga ñaanal ma yàlla mu jéggal ma samay bàkkaar allahu akbar xoolu Omar ibn al-Khattab ak fi mu toll ah troisième personnel ci l'islam gi ci sunna laa wax Omar ibn Khattab la ndax yonent bee jàll Abubakar ñëw Omar topp ci kooku bu ñëwee ci waa ji nga xamante ni ñu ngi naan ah uway si uway si uway si kookoy kan ah du sun gis nga ku ñàkk fa solo soo ko mu ñëw di ko jéggalu uway si ni ko ah yow Omar da ngaa baax rek yow yaa Omar am ibn Khattab man maa ngi lay doog a gis sax waaye yow yaa ma war a ñaanal Omar ni ko yëpp ma fonto defal ma li ma la wax rek ma dem sama yoon ñoom ndeysaan dañuy nëbbatu waa ji daal di koy jéggalul yàlla nar a dem Omar ni ko kaay mu ñëw Omar ni ko wax ma kuufa nga jëm wala Basra wala foo jëm ma bind benn lettre jox ko sama gouverneur boo demee mu jox la kër ci saasa nga dëkk fa te it loo soxla mu defal la ko allahu akbar mooy benn waay bu mel ni man rek bu nu woowoon ni la kaay ñu jox la kër jox la oto jox la na da ngay dem da ngay dem parce que doyadi gi foofu la toll waaye xoolal Uways al-Qarani ni ko maada allah loolu nga may wax maa ngi ciy muslu yàlla fi mu nekk nii li tax gars yi xamuñu ma mooy làqatoo ma ko yóbbu dama bëgg nga bañ dimbali ma ngir yàlla bul ma siiwal bàyyi ma ma continuer làqatu ba ma xëy faatu rek ñu ne Uways dee na Omar ibn al-Khattab bàyyi ko dem yoonam te jàpp naa ni bu ko nangu woon mu bindal ko lettre fu mu dem di jox ko kër ak ay jumtukaay ak i mbindaan yu koy liggéeyal waaye ñoom weccet suñu yóbbaale àllaaxira la ñuy bañ da leen di sonal di leen diisal su boobaa Abu Dhar al-Ghifari radiyallahu anhu Jaafar ibn Suleymaan nee na benn bis Abu Dhar damaa dugg këram ndeysaan ma ñëw xool gisuma dara dara benn mateelu àddina gisuma ko ci biir këram mu ne ko yaa Aba Dhar ayna mataakum Aba Dhar yéen ana seeni jumtukaay yi fii ci kër gi ah mu ne ko lana baytun nuwajjihu ilayhi saaliha mataaina mu ne ñun dañoo am kër gu nekk ca ajag-jag-jaj gu sori ga liñ am ci ay bagage yu baax yëpp jot nañ ko faa yóbbante dégg nga de mu ne liñ am ci bagage yu baax yëpp yóbbante nañ ko foofu ci kër gu nekk ca ajag-jag-ja qaal mu ne ko innahu la budda laka min mataain ma dumta minna haahuna yow fi àddina mënoo fee nekk doo soxla kudd ak cin ak kudd ci waar ak marmel ak fourchette ak yooyu ngay soxla ak ak foo dëkk ak lal bi mu waxee loolu mu tegal ko ci ni ko ah inna saaxiba almanzili laa yadauna fihi mu ni borom kër gi borom kër gi xam nga fa muy wax kër gi àddina mu ni borom kër gi nee na ñun duñ fi yàgg comme duñ fi yàgg nag duñ fi yor bagage yoo xam bu ñuy dem àllaaxira dañuy sonal moo tax liñ baax la ci ay bagage muy aw yiw yóbbante nañ ko àllaaxira foofu billahi aleykum mbokk yi ku nekk ci ñun ci taxawaay bii na laaj boppam matériel yi mu am di ko dundee ak matériel yi muy yóbbante àllaaxira ban moo ci ëpp hada huwa sual kooku mu ku nekk man mii maa ngi koy laaj sama bopp kenn ku nekk nag laaj ko sa bopp jumtukaay yi ngay jëfandikoo pour sa jagug àddina ak jumtukaay yi ngay jëfandikoo pour sa jagug àllaaxira ban moo ci ëpp laaj ko tontu ko Abdullahi ibni Saydaan nee na jëlee nañ ci Abi Dar nee na fil maali salaasatu shuraka nee na alal joo gis ci àddina ñett a ko associé mu ne dégg lu baax alal joo gis ñett ñoo ko bokk nee na alqadaru dogalub yàlla te it kat dogalub yàlla du la bàyyi nga met bëgg am ci alal ja la nga bëgg ndax dogal mën naa ñëw alal ja lakk dogal mën naa ñëw alal ja yàqu dogal mën naa ñëw alal ja réer dogal mën naa ñëw alal ja sànq ak kan mu ne aw mawt wala dee ah kon alal ja mën naa sànq dee mën naa ñëw mu yàq kon alqadru dogal dogal mën naa ñëw sànq alal ja lakk ko réeral ko yàq ko wala dee ñëw nga ñàkk ko mu ne kookoo ngi taxaw moo ngi yow a seq alal ji ñaareel mu ne wal waarisu ak ki la war a doon ki la war a doon moom te gis na ni bàyyi daa am alal moom moom bis bu nekk li muy xalaat rek mooy kañ laay am alal ndax bàyyi moom bis bu nekk ñu suuli ba ñëw rek daal di séddoo alal ji nee na kooku moom mi ngi xaar wàllam nee na ñetteel bi nag mooy yow léegi nag ñu xool kan moo gën a ñàkk fayda ci ñetti ñi subhanallah xoolal yaa lahu min fiqihin azim alal ji dee lakk réer sànq muy benn yooyu yëpp benn la mi ngi taxaw di la xaar am koo xam ne sa doom la yaa ngi ko jur mi ngi taxaw di xaar ñu miraas la ñu séddoo mu ni ak yow muy ñett muy nag ñu xool ku ci gën a ñàkk fayda xam nga kan moo ci gën a am fulla mooy ki nga xamante ni daa profité jëfandikoo jëfam mu ne comme kee ma ngi am fullay xaar nga dee mu donn ah dogal bi yàlla mi ngi xaar mu jot mu am fulla yàq alal ji mu ni yow mi mu tegee ci sa loxo amal fulla def ci balaa ñoo def ci yow allahu akbar loolu mooy alal ji bu nekkee ci sa loxo góorgóorlul gaaw wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin lu ngeen jiital ci aw yiw ñeel seen bopp fa yàlla tajiduhu inda allah huwa xayran looloo gën li ngay def lépp wa aadamu ajran moo ëpp ay tiyaaba wastaghfirullah dee leen jéggalu sunu borom tey jéem nag nee na sunu borom nee na lan tanaalul birra xatta tunfiqu mimma tuhibbun du ngeen àgg ci mbaax mukk lu dul da ngeen a dépensé ci li ngeen gën a bëgg ci seen alal mu wëlbati ko xool xool ba mu yàgg mu ne ah gileem gii ma yeew ci kër gi de yàlla xam na ne ci gileem yi ma gën a bëgg ci kër gi la bokk woo ab bëgg mbindaanam ni ko génneel gileem gi nga seet koo xam ko aajoo nga jox ko ko ngir yàlla xam ni jafe naa aaya ci dal di génne gileem gi saraxe ko kaanu waqaafin mumtasilina lil quran maanaam ñoom photocopie yonent bi lañ sallallahu alayhi wa sallam yu set wecc ndax alquran jin doon jàng ci boppam dañ ko doon dund nit ñi di gis saabit albunnaani bëkk néegam anas ibni malik ba jege ko lool nee na benn bis abu darda te xam ngeen ko abu darda ndax bu ñëwee abu dar kuy seexam abu darda lay doon nee na benn bis abu darda daa gis ni kër gi daa daanu mu dem wut ay birigi birigi këfin birigi kële birigi ban ñëw di tabax kër gi nee na bi muy tabax kër gi tombeeg abu dar di romb ci buntu këram mu daal di yegg seeg dar gémmiñ gi mu ne ko abu darda yaa ma bett yow ak ni la nit ñi coowee naan da ngaa dëddu àddina ak da ngaa nangam amul lenn looy def lu dul nekk bi naan da ngay tabax ay kër kër goo xamante ni lee nga dee ba ko fi mu ne fekkoon la say loxo ci pat sàmbur ngay ba jax ba jaxi sa loxo yi ci ay dem àll moo ma gënal nga jël sa loxo yi di ko ba jax ba jaxi ci ban naan da ngay tabax kër ca daan dem yoonam bàyyi ko mu ne mbokk yi abu darda wax dëgg yàlla li mu doon def nag aayut de aayut de ndax jëndut fer jëndut béton jëndut moom da ban la doon defaree këram te kër gu daal nag xanaa borom dana ko yëkkati waaye nag yëgal ni gis nga yëg-yëg nit fu mu toll rek lay waxee fa mu toll ak la mu yëg ak la mu gëm rek lay waxee loolu da lay wan ni maanaam kii moom kéemtaanu sunu borom la woon ci dëddu àddina abi asma nee na benn bis damaa dugg ci abi abi dar ca rabda ma fekk ko moog soxnaam soxna si ku ñuuloon la woon nag néewloon nekkuloon naar nit ku ñuul la woon nee na soxna saa ngi sol yére yoo xamante ni daal dafa xaw a maam daal tuwaaletuwul daal comme ni ko nit ñi waxee ah mu ne mu daal may wax ala tanzuruna ma ta'muruni bihi dégg nga li ma gaa yi digala abu dar naa ko dégg nga li ma gaa yi digala gaa yi de ñu ngi naa ma naa dem Irak eh waay su ma demee Irak ah nga xam ni gaa yi xam ni man saxaaba bi yonente bi laa xam nga nit ñi dañoo fonkoon saxaaba yi boobu saxaaba yaa ngi faat ay quelques personnes ñoo des xam nga ni bu abu dar jékki-jékkee ni tëll biir Irak lu way bàyyi jàppoon da nga koy bàyyi dëkk bi saxaaba bi yonente bi moo fi dugg loolu moo gën a rëy wallahi alazim président moo dugg ci dëkk bi gis nga toll nay jamono ab saxaaba dugg si ci biir dëkk bi ah moo gën a rëy président de la république moo dugg si ci biir dëkk bi ndax booba saxaaba yi dañoo commencé di waaj a jeex nag te xam nga ni buy waaj a jeex nag commencé jafe marchandise yi sax gis ngeen ko buy waaj a jeex tàmbalee jafe nit ñi di ko xëccoo mu ne ah waaw wax ngeen dëgg de ma demee Iraq gaa yi yëg ni Abu Zar ñëw na ñu gaaw comme ti bam teema ba dañax ma seen àddina ji yàqal ma muy duma ko def de ndax déggoon naa yonente bi naan sunu digganteeg jahannam benn pont bu ngand ma nga fa pont boo xam ni fakkastalu mën na faa nekk mu ne lu may dolli fakkastalu ci boppam laa doyal fi mu ne nii man muy du ma demee raaj de du ma dem mukk fii laay toog ba dee fekk ma fi mun mooy man mooy tandiku moo ma gënal di jaxasoo ak nit abu dar mbokk yi jaamukatu yàlla la woon woorkatu bëccëg la woon jullikatu guddi la woon sarxekat la woon waaye ku dëdd woon addina te doon jëfe lim doon jàngale ci jamono Amar ibn al-Khattab am na benn xew-xew mbokk yi bu xewoon ci Abu Dar boo xam ni xew-xew bu kéemaane la boo xam ni ni mu dawee yaram yàlla rek moo ko xam Amar ibn al-Khattab dafa toog ci biir Madina ba mu yàgg dal di seen ñaari xale yu góor di ñëw yëkkati benn paa di pamti pamteeg moom kii di diri fii kii di diri fii saxaaba yaa ngi toog de nekk ak Amar ibn al-Khattab ñaari xale yi góor di diri benn paa paa bi ñëw ñu koy diri muy ñëw bañ ñu ko bajax ci kanam Omar ibn al-Khattab Omar ni waaw lu xew ñaari xale yi góor yi ni ko waa ji moo rey sunu baay Omar ni ko yaa rey seen baay mu ne ko waa maa rey seen baay loolu jot ñoom ba rey seen baay mu ni maag seen baay dañoo digaloon tool dañoo digaloo tool biñ digaloo tool ak juróom daal dugg ci sama tool ca lañ jotee ma daal di koy fett mu dee Omar ni xale yu góor yi yéen lu ngeen bëgg ñu ne ko ñun kay liñ bëgg leer na ku rey sunu baay kay ñu rey ko rek Omar xool waa ji ni ko ah loo ci xam mu ne ko ah bu dee dañ maa war a rey nañ ma rey waaye l'essentiel maa rey seen bàyyi fen du ma ci fekk de Omar ne bismillah nañ ko rey ñu daal di jàppoo paa bi an nafsu bin nafs bakkan dañ bu ko rey bakkan dañ lay rey bi ñuy waaj a rey paa bi paa bi ni ah Omar man de fa ma dëkk daa sori te soxna laa fa bàyyi ak xale yi ndaw aw ma doom ju mag man de ba ñu ma ku ma rey waaye gëm naa ni boo ma reyee di nga sànk aw askan ndax benn duñu xam ni seen bàyyi rey nañ ko te maa leen doon dundal te tàgguuma leen te di nga leen juralu jaaxle ah Omar ni gars yi te- taxaw leen xaar leen léegi loo bëgg mu ne ko léegi man de dama lay ñaan nga may ma ñetti fan ma dem defar samay fay samay bor delloo samay ndénkaan wax sama waa kër ni leen man kat l'islam reylu na ma dañ may rey allahu akbar omar di ko ah yow xawma la guddi xawma la bëccëg ma bàyyee ñetti fan ngay dem ngay daw ah déet loolu kay duma ko mën a def mu ne ko insha allahu génn naa ci yàlla soo ma bàyyee su ma demee du ma daw dinaa dellu si waat omar ni ko loolu wóorut abu dar rek ngëm yàlla géeg ñàkk caaxaan yi fëqee ca làng ba jug ni bàyyi ko mu dem maa ko garanti bu ñëwul ngeen rey ma subhanal malikil aala abu dar xamu ko xamul fu mu dëkk xamul nu mu tudd xamul ndax dina dellu si omar ibn alxataab ni ko abu dar duggal ci loo xam bu ñëw dama lay rey de du xam nga ma mu ne ko xam nga ma may yow it xam nga ma mu ne ko xam nga ma omar ni ko du xam nga ma te wax na dëgg xam na ko bu ñëw da koy rey dëgg la abu abu ab omar ibn alxataab rey abu dar neexu ko bëgg ko waaye nag bu jotee da koy def de mu ne ko gis nga ku ko man ci garanti bu ñëw dama lay rey xam nga ma de mu ne ko yow it xam nga ma maa ko garanti Abu Dar daal di ñëw foon waa ji ni ko demal di nga dellu si mu ni ko dinaa dellu si mu ni ko demal Omar ibn al-Khattab ni ko gis nga ñetti fan yi su matee te paa bi dellu si wut yow laay rey mu ni ko baax na insha allah waa ji dem waa ji dem na moom alhamdulillah fay nay borom def nay ndénkaaneen def na lam def waaye ndax dana dellu seen du dellu si foofu la problème bi nekk la te bu dellu sut Abu Dar la ñuy rey première bis bi jàll na ñaareelu bis bi jàll na ñetteelu bis bee ci des ñetteelu bis moom bu jant bi fenk te waa ji ñëwul rek moom Abu Dar fanaane alaxira ndax Omar dana ko rek ko amul sa ay négocier gis nga ca waxtu tàkkusaan ci ngoon nag fi nekk nag moom li olof yi naan li xama séeréer yee ko yoo caaxaan baaxee affaire yi caaxaan yi jeex nag nit ñi commencé nañoo tiit nag Abu Dar moom tiitut moom tiitut rapput waaye nit ñi ay soxnaam ak ay soppeem ak kenn ku ci nekk yaa ngi tiit ndax li ngay tiit mooy xam ngeen ni tàkkusaan timis dañoo jege yo te timis a tee jant bu so moo tee ñu rey ko bu jant bi so ñetti fan yi mat dañ koy rey gars yi dajaloo ci penc ma kenn ku ci nekk yaa ngi mel ni ku toog ci nen Abu Dar moom daanaka mi ngi mel ni ku toog ci piliyaan moom faale yëg kanam gi benn atar benn mandarga bu wer ni moom tiit na sax amu ci Omar ibn al-Khattab a ngi naa ko bu yegsiwul dama lay rey waaye boo duggee ca biir xolam li muy bëgg a def bëgg ko lim nar a def bëgg ko mujjantal gi nag xam nga nit ñi nag mbir mi doyatuloo xam nga nit ñi nuñ def faf léegi wëlbatiku nag jàkkaarloog jant bi nag faf di ko xool la jàkkaarloog jant bi di ko xool ndax xam nag jant bi sona ba jeex rek mooy rey nañ Abu Dar tey ñu dem ba dara desut lu dul jant bi so nga xamante ni daanaka li olof yi naan ay simili ay simili moo tee ñu rey Abu Dar rek ñu seen benn waay buy fërëx fërëx yi daw di ñëw Omar ibn Khattab ni yëral leen ma kooku ñëw kum doon balaa ñu koo faat fekk moom am amoon ay ay ters ay simili moo des rek pour ñu rey Abu Dar ndeke waa jaa ngi daw ay xel yoo xam ne ndeke moom dafa ñëw doon ñëw pour matal ci li mu waxoon waaye mu ñëw ba ci yoon wi mu xaw a tardé mu ni xaaral ma daw gaaw balaa ñoo rey sama waaja bi mu yegsee mi ngi xëxët Omar ibn Khattab laaj ko foo nekkoon mu ne ko bi fa ma jógee dafa sori sama daw yi yëpp dama doon bañ waxtu wi ma joxe woon jeex ñu rey koo xamante ni ab jaambur la allahu akbar jullit ñëpp daal di takbir sant yàlla ndax abu dara ñu rey ko moom daanaka moom moom musiba la woon ci madina léegi nag lan moo des ñu takk waa ji moom dil si war na de dénkaane na joxe na ay borom bàyyi na njabootam xam leen ne l'islam waaye mbokk yi kooku dëgg dëgg gëm na yàlla de kooku bu doon nu na tey Afrique ngay génn Afrique laa waxuma na Sénégal Afrique ngay génn allahu akbar mu ñëw ñu daal di koy takk ba dara desut lu dul rey rek ñaari xale yu góor yaa ngi taxaw kenn ku ci nekk say rangooñ mi ngi tuuri mi ngi tuuru te ñoom ñoo ko reylu de kenn ku ci nekk mi ngi taxaw di tuuri rangooñ Omar ibn Xattaab ni waa lu ngeen di jooy ñu ne dëgg dëgg nag Omar kii ñoo moo rey suñu baay waaye baal nañ ko baal nañ ko Omar ibn Xattaab ne lu tax ngeen baal ko mu ni damaa xam ni kii ngëm yàlla gi mu am farlu gu mat gi mu am dem ca ak njabootam xam ni day dee si mu dénkaane jëllu si waat ngir nangu nu rey ko ngëm yàlla gu am nii ku ko am bàkkaar ba nga def danañ la ko jéggal baal nan la ko ndax dañuy bañ léegi tey rek nit ñi naan léegi baale jeex na ci biir jullit ñi Omar ibn al-Khattab walbatiku ni waa Abu Dar kaay mu ñëw mu ne ko Abu Dar yow da ngaa xam kii mu ne ko déedéet xam nga fu mu dëkk mu ne ko déedéet xam nga nu mu tudd mu ne ko déedéet waaye yow koo xamul noo koy garanti wóor na la ba xam dina wax dëggam du dëgg du wax dëgg muy damaa xool waa ji kanamam jox ma kanamu ku gëm yàlla ma xalaat ni léegi tey buñ ko wóoluwut rek ñu ne kon jullit ñi léegi kenn wóolatul sa mbokkam jullit man ma wóolu ko ci ay kàddoom même buñ may rey ngir ñu xam ne jullit ñaa ngi wóoloonte ba léegi subhanallahi alazim yi mbokk yi jeex na yi moom jeex na jeex na faatu na suul nan ko jeex na yi daanaka amatu ab julit boo xam ni ngëm yàlla toll na la fii ci ki def ak ki baale ak ki garante waaye Abu Dar ndeysaan te gis nga bi muy def lii nag bi sikkim baa ngi ba jaaw mi ngi nekk mag moo xam ne li wolof yi naan rey mu dee reyut mu dee moom daanaka magal na moom jeexal na ba pare li wolof yi naan ku ku dem mag dem ku demut mag dem ah nga xam ni waxuma la dara waaye fi mu toll rek foofu la gën a yërëm tëloo ndax bu doon waxambaane mooy gën a neex a faat sax ka nekk mu nekk magum jëm waaye loolu lan moo ko may gis nga dëggu benn borom xam-xam nee na saa boo dëggoo ci sa digganteeg sa borom rek sa borom daf lay jàppale ci loo mënti dugg loo mën a dugg nag sa borom jàppale la ci. kisos yu mel nii boo xoolee ci yore sax da nga ciy fekk yu bari yu lay wan ni maanaam ñoom seen dëggu ga mooy waral suñu borom daan leen dimbale lam leen doon dimbale defe naa yéen a ngi dégg xadis ba waaja leboon bor ah ca banu Israël yéen sasan di ko nettali fay jot mu leb waa ji waa ji ne ko ku lay garanti mu ne ko xanaa yàlla yow xawma la nga dima leb mu ne ko yàlla waa xamam waaye yàlla xam na ma ah kan mooy seede amuñu benn seede mu ne ko yàlla mooy seede bu doon noonu loolu doyut de faw nga bind ay kayit fii signé fii ñu def photocopie sa carte d'identité fii ñu dem police légalisé lu ne ñu dugg ci te sa mbokkum julit mu ne ko kafa billahi shahidan kafa billahi wakilan mu lebal ko xaalis mu ne ko bis tel dinaa ñëw fay si la bis ba jot te seen diggante ak def moo ci nekk amut gaal gu mu yéegee mu taxaw pour wut gaal amul gaal waaja moom dem ca pegg tefes ga di xaar waxtu wi jot pour ñu fay ko xaalisam gisul mu ne ah sama waaji waxuma woon lii de waaye nag yàlla baax na yow yàlla yaa ngi ni nag yow lañ defoon seede te waaji ñëwut de waajo moom ma nga taxaw feneen yàlla yow laa defoon seede de te gaa la ñëwut mënumaa fay mu dem ba heure bi passé mu for bant ga tax bantu ñambi suukar nga xam ni boo luqatee li ci biir day def am pax mu rëy mu jël alal ji rokkos ko ci ba mu fees saañ mbuus côté bi saañ mbuus côté bee ni yàlla yaa nekkoon seede keroog yaa nekkoon teewe keroog def naa li ma mën nag foofu laa mën a yem jël bant bi ni ko xurru ci géej gi ne yàlla yóbbu ko bant bi tëllëx tëllëx yi di tëllëx tëllëx yi mel ni sa waay gaal gu ñuy wommat paa bi taxaw ba mu yàgg mu découragé mu ne ah xaaral ma ñibbi kon waxtu wi jot na xëy na kon ci naruma fay mu seen ponkalum bant buy tëllëx tëllëx yi mu ne ah bant bi de dijj na xaaral ma xaar ko pour su ma demee kër ga ma xaar ko ñu toggee ci añ bant bi ñëw mu daal di koy yenu mi ngi ko yenu te xamuñu xaalis baa ci nekk de mu dem ba këram jël sémmiñ bi ni tay pour xar ko dugal ci biir taal bi rek gis xaalis bi ci biir kafa billahi shahidan kafa billahi wakilan xaalis ba dellu si maanaam yu mel noonu bul jàpp ni mënatu la nekk ahan kay maanaam nit ki kemtalaay ni mu dëggoo ci digganteem ak boromam kemtalaay sunu borom di ko jàppale amma Abu Dar ak ndénkaaneem yu rëy yi Sufyaan as-Sawri nee na benn bis Abu Dar dafa toog ci kaaba gi di waare mu ni yaa ayuha nnaas ana jundub al-Ghifaari ey yéen nit ñi kaay leen wuy si ma man la jundub al-Ghifaari muy Abu Dar halummu ila al aqi naasixi shafiq kaay leen ngeen déglu waa joo xam da leen di jox ay conseil te ku leen bëgg la fak tata fak tanafahu nnaas nit ñi daw nag tatafu ko nag mu ne araaytum law anna ahadakum araada safaran alaysa yattaxidu min alzaadi ma yuslihuhu wa yuballighuhu mu ni waaw bala maa tàmbale waaraate gi dama leen di laaj kenn ci yéen bu pare woon pour voyager voyage bu sori est ce que du ko préparé wut ab saaga ko bu yóbbal ak lu mu lekk ki bagage ba du tumuranke ci yoon bi qaalu bala gaa yi ni ko ahankay mu ni fa inna safara fa inna safara tariqi alqiyamati abadu ma turidu yëgle ne tukki bi ngeen di tukki jëm àllaaxira moo gën a sori ci tukki yu ngeen mës a tukki kon jàpp naa ne moo gën a yey ci ñu wutal ko yóbbal allahu akbar mu ne xudu ma yuslihukum gaaw leen ngeen wut yóbbal bu leen di dimbale ci àllaaxira qaalu wa ma yuslihuna gaa yi ne ko waaw lan moo ñuy dimbale àllaaxira mu ne xujju xajjatan li adaimi al umur wa suumu yawman shadidan xarruhu li tuuli yawmi nnusuur wa sallu rakaatayni fi sawaadi llayli li waxshati alqubuur mu ne ajal aj gu mag goo sellal ngir aj gën a rëyee tiis yu rëy ya lay alaaj al xaar àllaaxira sunu borom mën na la koo fegalee mu ni tànnal bis boo xam ne dafa tàng jër nga woor ko mu ni taraayu bis booba mën na laa fegal taraayu àllaaxira bàyyil ba xaaji guddi lëndëm këruus nga jóg làmbatu jàpp julli ñaari ràkka lëndëm googu mën na laa fegal lëndëm ak bàmmeel allahu akbar mu ni kalimatu xayrin taquluha aw kalimatu sharrin taskutu anha li wuqufi yawmin azim kaddu gu rëy goo xam ne yiw lay jur nga wax ko wala kaddu gu rëy nekk musiba nga war koo wax noppi ca ngir tiit taxawaay bi ngay taxaw sa kanamu borom buñ lay réglé li génnoon ci sa làmmiñ mu ni wa majlisan ah mu ni ijali dunya mu ni tasaddaq bi malik laallaka tanju min asiriha li nga jël ci alal jéem cee séddale ndax tiisi àllaaxira yi nga mucc ca mu ni àddina def ko ñaari toog ñaari place place boo xam ne boo fa toogee lu lew ngay wut ak place boo xam ne boo fa toogee àllaaxira ngay wut nee na ñetteel ba jarul ma koy tudd yaa ma ko gën a xam dalay lor waaye du la jariñ allahu akbar mu ni ijaalil maala dirhamayn alal ji nga am def ko ñaar dërëm benn dërëm bi da nga koy dépensé ci sa njaboot mu lew la benn dërëm bi génne ko nga saraxe ji ko mu toog àllaaxira xaar la fa ñetteel ba xam nga ko xam naa ko duma ko tudd dalay lor mu daal di woote ca kaw a kaw a kaw mu ne yaa ayuha nnaas qad qatalakum xirsun laa tudrikuunahu abadan xam naa ne li may wax du ngeen ko jariñoo ndax bëgge gu ëpp moo leen rey ba ngeen dee moo tax kenn mënu leen a dundalati naafi attaaxi nee na benn bis damaa romb abu dar mu laaj ma yow foo bàyyi ko ma ne ko man ci iraq laa bàyyi ko mu ne ma ndax xam nga benn waay ba ñëw abdullahi ibn amir ma ne ko waaw xam naa ko abu dar ni ko ah abdullahi ibn amir de saab taalibe la woon maam saab taalib mooy dana jàng ci man maa ko doon jàngal nee na daana jàng ci man alquran waaye mu jekki-jekki rek ni fi njukku njàngal bañ fal ko amir mu jiite nee na boo fa demee ca moom xam naa dina la laaj ay ay laaj dina la bëgg a fal sax yow mii ndax moom dégg naa day fale ay poste waaye maa ngi lay yóbbanti boo demee bu la bëggee fal poste nee ko jéggal ma ko man Abu Dar moo ma yónni ci yow nee na Abu Dar mi ngi lay jottali nuyoo te di la xamal ni ba léegi mi ngi lekk tàndarma te taxu koo dee te ba léegi mi ngi naan ndox te taxu koo dee yaa ngi dund moo ngi dund mu ne ko waxal ma ko loolu lettre bu gàtt la kii wax xam na li mu wax waaye kañ wax dina dégg lam ko wax gis ngeen wax ji de ki wax xam na li mu wax waaye kañ yi waxal xam na ko nee ko ba léegi maa ngi lekk tàndarma ak ndox di dund te deewaguma comme ni ngay dundee yow wasalaam am na baat yoo xam ne daa gàtt lool waaye lu bëree ci la masu naafi attaaxi nee na bi ma yegsee daal di ex ci abdullah ibn amir nee na ma daal di koy nuyu ah mu daal di may laaj ni ma foo bàyyi ko ma wax ko man day ndawal abu dar la nee na bi ma nee ndawal abu dar la rek mu sëgg nee na bi mu sëggee rek laa xam ne wax ji dana dal tey ma ne ko abu dar moo ma yóbbante nee na inna nakulu min altamri wa nashrabu min almaai wa naishu kama taish abu dar nee na ba léegi mi ngi lekk tàndarma ak ndox te mi ngi dund comme ni ngay dundee nee na bi ma waxee loolu rek ma dégg yëkkati mu commencé jooy mu jël tarafu yére bi rek muur ko ci bopp bi nee na maa ngi dégg yëkkat yi mi ngi jooy xoolal kàddu googu ni mu gàttee waaye la ko abu dar wax moom ñun buñ ko déggul moom dégg na ko maam da kaa bëgg a wax ni man maa nekkoon sab sëriñ maa la raw di la jàngal kon bu dee pal maa la ci gën a yey te man mii daw ak pal ah waroon naa tax yow nga daw ak pal ba nga faloo ba léegi li ngay lekk gën a neex li may lekk yaa ngi dund maa ngi dund te man tàndarma ak ndox doy na ma sëkk Abu Dar ànd ak dund gu yàgg googu yépp nga xam ni fii xidmatil kitaabi wa sunna dem ba beru génn Madina rek dem fa rab da dëkk fa lépp ngir bëgg mucc te mbokk yi xoolal xoolal xoolal war la Abu Dar dëddu àddina gi xoolal Madina mbokk yi julli ci jàkkay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ah allahu akbar la ca nit ci ay tiyaaba xoolal ni mu toll ah jàkka joo xam ni ñaari ràkka rek ah boo ko fa julli da ngay mel ni ku julli juróomi téeméeri ràkka ah mu mën ko faa bàyyi génn dëkk boo xam ni boo fa dëkkee bu ma si yox dajjal feeñoon da ngay mucc yow mu mën ko faa bàyyi génn dëkk ak amirul muminin mën ko faa bàyyi génn yooyu yëpp ngir dëddu àddina dem Rabza ba fa la ko dee fekk ginnaaw dund gu yàgg googu benn bis ci bés yi rek sunu borom yabal malaakal mawtu mu fekk ko foofa fa mu dëkk nga xamante ni kenn ku nekk ci ñun ak foo mën a ne ak ci loo mën a ne malaaka moom dana la fekk fa nga nekk yóbbu la ca waxtu wa nga xamante ni xamoo sa bés xawma sama bos wala fi nag daanañ lépp ni kundul xaar da ngay xaare ba jamono oto amut avion amut terrain rek moo doon am ñu ne bisub àllarba la terrain gi jaar te nga bëgg a tukki te terrain bi bu la rëccee àllarba bi dellusiwaat te tukki bi moom mënta ñàkk suba teel ngay xëy takk say bagage ba mu dëgër dem ca gaar ba taxaw di xaar terrain bi moo ne ci mbiri àddina la ñuy wax ba léegi de ndax bu la rëccee dootoo demati ci mbiri àddina nag moom takkal say bagage waaj ndax yow deema na laa bett ci waxtu wu ne kenn ci ñun na nekk man wala yéen wala keneen na laaj boppam tey bu ko dee dikkaloon ci guddi gi ban jaama nar a dajeeg yàlla tey ki nar a dajeeg yàlla kan la fii ma toog di wax bu ma fi dee fekkoon mbaa mu fekk leen fii ngeen toog di déglu tey boo yeggoon ci sa borom ban jaam ngay doon loo ëndaale ndax li jënti ga sa bopp doog a yegg ndax fekkoon na la nga waaj ay laaja ngi yoo xam ne benn bu nekk war nañ koo laaj suñu bopp imam ibni kasir moo ñuy nettali ci bidaaya wa nihaaya faatu abu dar nee na abu dar dafa xëy rek tëdd ndeysaan yaay ji xam ne mi ngi sukuraat yaay ji boot loxoy ndeysaan commencé jooy ndax xam ngeen ni yaayam soxnaam doomam jeex na waa këram mu ne xanaa ak mbindaan moo xamante ni nee na moom liggéeyal abu dar moo ko neex salafu saalax ni daa leen def noonu daa nga gis kenn ku ñëw mu ni man yow borom xam-xam bi wala yow jaamukatu yàlla bi wala yow nit ku baax kii wala yow nangam damaa pare pour jaamu yàlla ci yow liggéeyal la nee na benn mbindaan moo ñëwoon mu ne man dama laa bëgg a liggéeyal ba keroog ngay faatu ñoom ñoo rek ñoo nekk seen kër nee na ndaw si di jooy Abu Dar ni ko looy jooy mu ni ko li may jooy kay mooy xanaa xam ni nar ngaa faatu faatu gu métti problème suul la sax dañ koy am ndax ñun jigéen ñi xam nga du ñoo lay mën a suul Abu Dar daal di reetaan te fekk mi ngi tëdd allahu akbar ak sukuraat ni mu méttee mu reetaan yaa jëlaat ko looy ree mu ne ko damaa xam ni nag fi mu ne dama dañ ma gën a dolli confiance ci dëggal waxu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni am mbooloo nekkoon nañ koog yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni am na benn waay ci yéen boo xam ne buy faatu day tumuranke ba ku ko suul du ko am mu ni saxaaba yi ba doon dundaluñ ku ci nekk dégg ci dëkk bu siiw ñu xam la maa ci xamoon ku ci des koo xamante ni nekkuma ci dëkk bu siiw kon maa ci des tey kon waaja man la mu ni beneen bi ci des yonent bi newoon na ma yaa waajaa nga nee di ñëw di tumuranke te buy dee day wéet tumuranke woon naa keroog man dong àndoon ca Tabuk maa ngi nii tey man dong damay wéet gis nga suma faatoo muur leen ma teg ma fii yàlla dina yabal waaju ñëw ba defar ma bu soobee yàlla ñu daal di koy def mu faatu ñu sàng ko muur ko yëkkati ko teg ko ci pegg yoon bi tombeeg bis boobu net Abdullah ibn Mas'ud mi ngi jóge Kuufa jëm si Madina xoolal def defi suñu borom da na xamoon na loolu xamu ko de xamu ko de maanaam gëm waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo waral lii Abdullah ibn Mas'ud daal di jub si rek seen benn waay buñ tëral muur ko ñu xam ne ku faatu la gars yi ni ko ah yaa imam léegi daa mel ne ab néew lay nurool seen xel sax nekkul ci Abu Dar wala Rabza ndax ñi ngi romb Rabza xanaa seen xel waroon naa xalaat ne fii Abu Dar doo nga fi dëkk bi ñu yegg see Abdullah ibn Mas'ud ni cëpp ci giloon gi mu yéegoon daal di wàcc benn kenn ci taalibe yi daal di dem daal di waaw kii faatu kan la ñu ne ko kii de kenn la ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yonent bi taw Abdullah ibn Mas'ud daal demal boppam bi mu ne saxaaba rek mu demal boppam daal di muri bopp bi bi miree bopp bi xool kanam gi muy Abu Dar rek dafa sëkk ci kanamam jooy jooy jooy yu metti foofu sax ndax Abu Dar ah Abdullah ibn Mas'ud bokk na ci ñi xamoon martaba ji mu amoon ci biir saxaaba ya ba mu jooyee ba nag mu daal di koy seedeel wax ci moom ay wax yu rafet bokk na ci wax yam doon wax mooy yonente bi wax yooyu mu waxoon ca Tabuk ak ya ca topp ba mu noppee mu daal di wax gaa yi nan koo sang sang ko defar ko Abdullah ibn Mas'ud moo ko sang moo ko sang moo ko jullee fekk Abu Dar bi muy faatu dénkaane woon nan am xar mu ni bu bu fekkee gaa yi romb nañ buñ ma defaree comme dañoo nekk ci tukki nan leen ko rayal jox leen ko ñu lekk ko ñu daal di jël xar moomu defar ko jox leen ko ñu daal di koy lekk Usmaan bi mu ko déggee ndeysaan mu amu tiis lool mu yabal benn waaye ni ko demal nga buubal ma njaboot ak Abu Dar yépp indil ma leen fii ci Madina ma sàmm leen yor leen comme ni leen seen baay yoree woon subhanallah lii nag moo lay wan ni gis nga mbokk yi nit ki bu ragalee yàlla warul tiit ginnaawam fu njabootam jëm ñun da ngay nekk ah waaw damay def nii def naa def na le pour su ma yee du ma lii du ma laa maanaam yooyu ñuy wax gis nga Amar ibn Abdul Aziz daa toll ci sukuraat benn waaye ñëw ni ko waaw yow sa njaboot gi doo ci waxat yow yaay amirul muminin doo leen bàyyil sax dara mu ne ko man maay amirul muminin su fekkee samay njaboot ñu baax lañ day yàlla wax na ci alxuraan ne wallahu yatawalla salihin su fekkee ñu baax lañ yàlla nee na ñu baax ñi moom bu seen bu moo leen di féetewoo ba faaw kon njaboot goo bàyyi ak yàlla defe naa moo gën a wóor goo bàyyi ak ay nit bu dee ay saay-saay lañ nag man rus na maa bàyyi ci kaw suuf loo xamante ni sunu borom day gis ni ay saay-saay laa ko bàyyi seen problème la noonu la jullit di mel. gis nga maanaam nit ki kemtalaay ni mu góorgóorloo sunu borom da koy sàmmal njabootam gannaawam ndax xam ngeen ni ba ñu faatoo njaboot gi yëpp la ñu buub daanaka dëkk ba xaw tuuti kon ñu ni mu daal di fay ca Rabza Osman daal di leen di indi fa nga xamante ni mooy Madina fa leen yore ba ni mu faatoo radiyallahu anhu wa arda kon loolu moo nekkoon ñaareelu bind ci dundu as-sahabiyul jalil Abu Darrin al-Ghifari radiyallahu an Abi Darrin wa an jamii as-sahabati ridwanullahi alayhim ajmain nu ngi ñaan sunu borom mu defal ñu tawfiq fi dunya wal axira yal na yàlla boole ci nga xam dañuy dégg wax ñu seet la ca gën a baax gën caa jub ñu jëfe ko mu bañ a nekk lu ñuy dégg rek waaye borom bi defal nu ak jàppandal. ba liñ ci mën a jëfe mu nekk lu bari lool te buñ ko jëfe suñu borom nangul nu ko di wax la waaja waxoon rek ya rabbi baas lana min mithlihim nafaran yushayiduna lana majdan adanaahu di ñaan suñu borom mu tàggat nu ban mën a delloo siwaat dund ku sell te silwise te dëppoog na ko suñu borom gërëmee ku mel na saxaaba yi dun dundee di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq ci àddina ak ci àllaaxira suturaal ñu fii ci àddina taxta al ardi wa fawqa al ardi wa yawma al ardi alayh وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين